Euh, contenu local maanaam du jox lu dul manaam màndarga delloo askan wi maanaam seen ak seen yelleef xam nga mine ak pétrole gaz état transféré wu ko doontele ña ngi koy exploité ci yenn zones yi mais zones yooyu soo gisee souvent ay jafe-jafe mooy am maanaam dañuy am li ñu naan paradoxe de l'abondance dañuy jege exploitation bu bu buy def ay milliards de bénéfices mais ñu gis à côté des ilo de misère population yi di sonn trop parce que loolu li ko indi mooy souvent ressources état central moo koy capté léegi nag ñun dañu bëgg. à travers le contenu local d'abord l'emploi local qualifiant maanaam ndaw yi nga xam ni dañoo nekk ci gox-goxaan yooyu ñu fexe ba jàppale leen lii ci wàllu bourse lay doon lii ci wàllu formation fexe ba signer convention lu mel ni lycée technique lu mel ni ISEP lu mel ni université de Thiès lu mel ni école polytechnique ndaw yooyu jógee ci gox-goxaan yooyu ñu former leen ba ñu nekk ay ingénieur nekk ay cadre supérieur nga xam ne ñoom dinañ mën a taxaw sooy sa suñu defee dañuy delluwaat ci gox ba maanaam suqali askan ba beneen bi ñu créer ay entreprise maanaam xam nga entreprise yi dañuy lekk soo demee fu mel ni GCO wala Taïba dañuy am ay ay seen fi ñu loger seen seen seen seen employé léegi employé yooyu xam nga ñu ngi consommer bis bu nekk maanaam lii ci ay biens de service lay doon lii ci wàllu lekk lay doon lii ci wàllu laneen ñun nag ñu niin bala ñuy dem di ko jëndi faneen wut seen propre entreprise nañu fexe ba ci gox-goxaan bi ñu fexe ba lëkkale leen jàppale leen ñu def ay PME PMI e local maanaam entreprise yoo xam ni yu yu yu yu si gox ba la ñuy jóge mais doomu gox bi tam la ñuy jël mais la ñuy def aussi dafay méngoog bëgg-bëggu entreprise yi xam nga xaalis boobu su ñëwaatee dafay suqali dafee mu nekk déjà des zone vraiment économiques viable nga xam dañuy nekk zone de développement loolu daal lañ ci bëgg a promouvoir mais loolu il faut ñu xaatim ko xaatim bi mooy code minier bi ak code pétrolier bi jël na ko en charge mais dañu bëgg ñun ñu weesu foofu maire yi nga xam ni ñooy euh, abrité zone yooyu ñu fexe ba signer ay convention locale maanaam signer ak bi convention comme ni Mbaye Dione def Gunjaan Alé def ko fële ak Africa Tayba Ndiaye yooyu lañ bëgg mu am su amee day indi jàmm xam nga tey koom-koom mënul am lu dul jàmm jàmm bi nag mooy kenn ku ne sa àq sa yelleef nga kii ko mais su fekkee ne ñu ngi violé àq yelleefu doomu aadama yi di gagné ay milliards sa gisuñ ci seen bopp moo indi souvent soulèvement yi nga gis moo li amoon Kédougou li amoon tey zone Mboro Darou Khoudoss moo fi am loolu nag lañ bañ bu ko dànkaafu comme ñun société civile lañu dañuy alerter gaz beeg pétrole bi commencé guñ ko exploité mais xam nañ ni Kayar forcément napp gi dina ko laal donc ñu ni léegi nañ fexe ba créer ay activités de subsistance maanaam yeneen activités yoo xam ni tey su loolu ñëwee dina nekk xéewal waaye du yàq tey lompañ maanaam koom-koomu dëkk boobu ak euh, population yi loolu daal presque daanaka mooy solos ndaje bi sa dajale nañ acteurs yëpp nag. parce que dañu dajale ñi am xam-xam ci loolu waaye ñi nga xam ne aussi ñi ngi koy jëmmal mu mel ni GCO mu mel ni tey lycée technique de formation professionnelle pour que ñu dem mais du ñu yem fii nag dañu bëgg cadre boobu Thiès ñu gën ko konne muy cadre multi acteur pour gën a suqali pour que Thiès daal nekk comme ni mu nekk première région minière du Sénégal waaye ñu yëg ko tam ci koom-koomu région de Thiès ak Sénégal waa tàggatu ndaw yi xam nga ndaw yi souvent dañ leen doon jël comme ay ouvrier wala ñu jël leen comme ay manœuvre wala ay chauffeur parce que amuñu benn qualification ñun nag li ñu bëgg xam nga tey entreprise bi xam na lan la war a jël ci emploi année bi ak année bi mais na signé convention lu mel ni lycée technique lu mel ni université lu mel ni ISEP ne leen man damaa bëgg ay ay ay par exemple emploi qualifié si tel mais ma mais entreprise boobu mooy joxe bourse bi accompagner ndaw yooyu sa ndaw yooyu nañu jógee ci ci ci gox goxaan yooyu su ñooñu ñëwaatee maanaam ñooñu dañuy rester terroir bi c'est dina soqali gox ba dinañ mën a sa accompagner ces PME PMI dafay lëkkaloo loolu moo tax ñu wax ni formation bi da ci am solo trop parce que métier la boo xam ni soo amul doo ci nekk muy pétrole muy gaz muy mine soo xereñul doo ci nekk donc soo ñu ouvrier da nga mën nekk mais avec le local content maintenant dafay fexe ba promouvoir emploi local mais formation local bi formation qualifiante bi du moins pour que xale yooyu mën a nekk ay ndaw yoo xam dinañ jëriñ seen dëkk waaye aussi ñu fexe ba a terme doomu réew mi rek ñoo koy saytu ndax comme ressource mi réew mee ko moom ñu fexe ba nga xam te étranger yi muy li nga gis indien yi muy américain yi muy ba à terme transfert de technologie la ñuy wax loolu maanaam xam-xam boobu ñu am suñu formé xale yi dañ leen koy jox xale yi joxaat ko yeneen génération finalement ressources yooyu day nekk ressource nationale comme ni ko constitution bi waxee. notre pays c'est de rapprocher davantage ces actions aux communautés bénéficiaires les communautés bénéficiaires c'est effectivement ces communautés là qui vivent à côté de l'exploitation des ressources qui sont directement impactées de ce fait nous avons considéré que la coalition décentraliser et actions et son organisation en tant que telle. Ce qui fait que nous avons pris l'option d'avoir des antennes dans toutes les régions où il y a exploitation. De ce fait, nous considérons que si au niveau local, on mobilise l'ensemble des organisations de la société civile pour apporter leur plus-value dans le travail que nous sommes en train de faire, nous pourrons considérer que d'ici aux années à venir, la société civile aura joué son rôle fondamentalement dans la défense des droits des communautés. Justement, le débat un Euh, disons, est toujours d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que quand même l'État du Sénégal est en train de respecter un peu ses contrats Alors la question de la transparence de façon générale sur toute la chaîne des valeurs constitue euh, l'élément moteur même du travail de la coalition Publier ce que vous payez. D'où même le nom Publier ce que vous payez. qui exprime la notion de transparence. Pour le cas du Sénégal, le cas spécifique du Sénégal, il y a eu des efforts de la part de l'État en publiant un certain nombre de contrats, mais il reste encore d'autres contrats et d'autres mémorandums qui ne sont pas encore publiés. C'est le cas du contrat avec Total qui est récemment signé entre l'entreprise et l'État du Sénégal qui reste encore vraiment un problème sérieux et qui avait occasionné quelques bisbis politiques à l'endroit même du gouvernement du Sénégal. Donc nous considérons qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire, non seulement en termes de transparence sur toute la chaîne des valeurs, mais de façon particulière sur les contrats avec certaines compagnies. Il faut les communautés impactées de pouvoir répondre aux exigences de ce contenu local Alors le contenu local est un mécanisme qui nous permet aujourd'hui de mobiliser davantage de ressources, de profits à l'endroit des communautés qui sont directement impactées et même les autres communautés qui ne sont pas directement impactées à travers le fonds de procuration qui est consacré par les différents codes miniers et pétroliers. Mais aujourd'hui, l'idée c'est comment ces communautés devraient se préparer à pouvoir aussi affronter ces compagnies en termes de formation. Généralement, les compagnies nous opposent le déficit de formation qualifiante pour son personnel local. Mais si aujourd'hui on va dans le sens de promouvoir cette formation qualifiante et qui pourrait être parrainée d'une part par les compagnies à travers les actions RSE, mais aussi à travers des clauses contractuelles qui permettraient aux populations, aux jeunes qui sont directement impactés de pouvoir bénéficier d'une formation qui leur permettrait demain, à travers le transfert de technologie, à travers même des emplois de haut niveau dans ces différentes compagnies-là. Au-delà à travers le contenu local la fourniture de services au niveau local ou la sous-traitance, comme on l'appelle en d'autres termes. Ensuite, il y a les redevances, les taxes au niveau local qui pourraient être reversées directement à, aux collectivités locales qui sont directement impactées pour pouvoir permettre à ces différentes localités de pouvoir émerger à travers ce qu'elles peuvent mobiliser à travers les compagnies minières et pétrolières.